ci yonent bi muy benn cofeel gi nga mel ci yàlla ak gi nga mel ci yàlla ak mbëggeel gi nga mel ci yonent bi muy ñaar waaye cofeel gi la yonent bi ëmbal noo toll ci yonent bi ak noo toll ci yàlla maa Alaaji Maal nee na soo ko bëggee xool xoolal noo mel ci alquran inna alquran naka alquran wal mizaanu mooy balance bi ngay peesee taarifu ci ngay mën a ràññee maa xawayta minal aswaaqi wa sadami li nga am cofeel ci yonent bi ak mbëggeel am ko cofeel ci yàlla ak mbëggeel ak yàlla ak yonent bi nu ñu mel ci yow xoolal ne mel ci alquran noo mel ci alquran ak moo lay àtte mu ne benn bi de mooy xale mag mu toog di jàngale téere yàlla bi ñu ne ko ñaareel bi ban la mu ne li ma gën a bañ ci àdduna mooy groupe bu jigéen ñu toog ma dégg ca baatu góor ci waañu maam safiyatu soxnaam di wéy juru Cheikh Al Hadj Abdel Dabba daf ko daggoon baare ko waañ wi bokkul ak fi gu taalibe yi di benn gumba di yelwaan jaawale bunt ya dugg ca waañu jigéen ña ne mastata Maodo dégg baatam ci baa waañu jigéen ñi mu mer ba kanam gi changé ana baatu góor ci jigéen ñi ñu ne ko si gumba la dafa jaawale mu ne gumba bi laa gën a fiire ñu ne ko ah, lu tax day mu ne déet moom mën nga koo xool tadu du xam ne yaa koy xool xam nga mi bët soo ko ne bàq xool mu xoolaat la nga sëgg waaye ki ngay xool te gisu la da xool ba doyal est-ce que wóor na ndax jigéen ñi am na ku koy xool wala déet yaxdu min absaarihim la waxoon wa yaxdudna min absaarihinna na na góor ñi téye seen bët yi jigéen ñi téye seen bët jigéen ñi di ko xool ngeen naan ma gumbal ca biti te gumba dee làmbato moo tax sariya booy jullee néew bu dee jigéen mun la bul taxaw ci li yàllaa fiir ñu ne am na damay bañ nga tiim ndigli sa xel ne ci bu dee jigéen boo koy jullee taxawal ca bopp ba jegeel bopp ba bu dee góor taxawal ca ci li tiim ko ndax dagat na la. xelal nu sonal xel. mu ne li yàlla gën a bañ loolu laa ci gën a bañ. ko background dafa am benn góor yàlla pour nga xam dimension spirituelle bi Cheikh Hadj bu ñuy wax njaga góor gi njaga lay mu ngi nekkoon dëkk bu ñuy wax kër njaga mbay ci bawal mu nekk fa ak sëriñ bu bari xam-xam bari lasraar ñu di ko moor binte Gueye mais Cheikh Tidiane sëriñ bi dafa mën a ñaan bari xam-xam ba aajo boo ko indil mu faju waaye moom dafa am problème bu guddee du nelaw xam nga lu ko tey nelaw fu muy dajee góor yàlla bu ko yóbbu ci yàlla Cheikh Sarr Maodo ñett la amoon ci taalibi koo xam ne dara nekkul ci boppam ñu indil ko mu jàngal ko ba mu am xam-xam defar ko mu ñibbi muy benn ak ku commencé ba se ba ca digg ba mu ñëw Maodo mottalil ko ak ku dajale lépp waaye dem ci yàlla moo ko tax daan na waxit benn wax moom Cheikh Hadj ku am sa doom bëgg ku la ko yaral bu ko indi Tiwaawan bu ñëwee du yaru man Malick Fawad du mënu maa yar yéen nga ne Tiwaawan duñ yar nit. mënuñoo yar Maodo nee ku bëgg ku la yar mu ne yaru tubaab a koy def nit ku yaru mooy xam li mu moom ma yem ci am ay limitam waaye li nga moom kenn du la ca fekk waaye lim moom ku ko ca bëgg a fontoo nag ngeen dégg tubaab boo dëkkee moom appartement ubbi sab rajo yokk ko bëgg koo sonal police lay woo. léegi nga abal ko. wala déet mu ne kooku jikkoy tubaab la. ñu ne Maodo looy def mu ne man damay defar nit ku defaru mooy koo xam ne doo dund ak moom ba xam lu ko naqari. bis bu ne moom. Mhm. Mhm. fasamat mhm. Leyla bi tajudi waliyun منار الدين أعلى عرفاءة إنارات وأمت عموم محمدي waaye ku sopp Seydil Hadji Malick dolli ñu magal ko iza nahnu ji'na nahwa min ta'allumin Cheikh Tidiane ñaar yooyu rek laay firi waliyun ak iza nahnu ji'na nahwa min ta'allumin waliyun Cheikh Tidiane ki wax lii mooy Serigne Alioune Gueye menn ku sopp Seydil Hadji Malick waliyun bokk na ci xam-xamu Serigne Sey Serigne Alioune Gueye Serif Sukayri ji ca Faas Seydi El Hadji Malick Sy moo doonoon Cheikhu Tidiane toog ci xilaafa Tidiane yi ay at Maam Maodo Malick Gaye waliyu ay góor yàlla jógee nañ fii dem Fass fekki Cheikh Seydi Sukayru ji pour jëlee ci moom ay xeetu xam-xam ak i lasaraar ak i ijaaza waliyoon mu toog dégg na baaba Babacar Sy moo doon Cheikh Al Hadj Malick Sy. ku sopp Seydi El Hadj Malick waliyoon. mu ne dégg naa ne El si Malick Sy dafa bàyyi ñeenti doomi góor waaye kenn ku ci nekk mat nga sëkk ci yàlla waaye ki ñuy wax baaba Babacar Sy nañ ko jiital wa illaa takun fitnatun. maam Maodo Malick Sy waliyoon. mu ne day nattu xam-xamu kër Seydi El Hadj Malick te Serigne mi ci kanam lay nattu ba xam. bàyyi Serigne Babacar Sy waliyoon. mu bind lettre Seydi Serigne Babacar lettre bi yëpp Cheikh Sarr par suivre la. bàyyu alxaaji Mansoor wali lettre bi amul xaraf day def un def vingt def trente def quarante bàyyu dabax Malick Sey wali def deux cent def neuf cent def dix def quatre bàyyu alxaaji Habibay wali ba kayit ga fees bu adressé ko Tiwaawan ne ilaa Babacar si xalifati Seydil Xaaji Malick Sey wali mu ñëw Serigne Babacar si déppee lettre bi ana taalibe cheikhi loxo wali a sayid sukkari ji mi toogal cheikhu tidiane ca faas mooy nattu ndax ki toogal alaaji malik fii ci tiwaawan mat na place bi wala déet mam Maodo sey wali man Babacar si duma ko firi kenn ci ndongoy Maodo yi laay jox mu traadi lettre bi mu xam na fii këru xam-xam la sopp sidil haaji malik wali na gees na an Aline Gueye mu ne maa ngi mu ne ko lettre baa ngi booy xëy suba tradir ko sidil haaji malik sey wali cheikhul qawmi alaaji Mansour ci jotaay bi toog mam Maodo malik sey wali eh, Oustaz loo mën a wax Alaaji Mansour ak Serigne Babacar Sy dañuy soppante te yàlla tax Seydil Hadji Malick Sy wali ay complice la woon ñoom ñaar kenn du Maodo Malick wali. musuñu réeroo lu waaye def sa morom ngay waxal. Seydil Hadji Malick Sy wali. mu bëgg ndamal Serigne Babacar moom El Hadj Mansour radiyallahu taala. sopp Seydil Hadji Malick wali. Serigne Aline Gueye fanaan bët set mu traduire lettre ba. Seydil Hadji Malick Sy wali. ba ko traduire sept sept sept lignes rek la ko def. ma Maodo Malick Sy wali. bi lugatin arabiyatin fasahatin. Seydil Hadji Malick Sy wali. def ko ci poosam ne bu ñu wasifa mu andil ko. mu andil ko Seydil Babacar Malick waliyoon. Alaaji Mansour bokk ca sot ba moom it traduire ko te sëñ Babacar waxu ko. Seydil Hadji Malick Sy waliyoon. moom it la mu traduire mu def ko sept lignes kese. tëj ko. Serigne Aline Gueye ne wali. même chiffre même lettre yi même xaraf yi alaaj Serigne Aline Gueye def moom laa laaj man soo def te yëgantoo wuñ. Serigne Aline Gueye ne wali. Serigne Babacar wasifa ci jàkka ji ba pare Serigne Aline Gueye tepp lettre bi na ko am. ku sopp Sidil Hadji Malick wali. mu xool kon nag nii lay mën a demee kër Maodo Cuuna di fi yeewoo. maam Maodo Malick Sey wali. maam Mansour ne ko déedéet dama participer man it traduire naa ko tawaxoo ma. Sidil Hadji Malick Sey wali. mu xool ko lettre yi même chiffre lépp di benn. bàyyi alxam. Alhaji Mansour Sy wëlli. mu ne xanaa da ngeen a yëgoo wala ngeen waxtaan ñu ne ko biig lañ gëj a gisee. waaye da baax Mali Gueye wëlli. mu ne nii lay mën a demee bu Aline Gueye traduire woon te doomu Maodo traduire du saf. bàyyi Alhaji Habiba yi wëlli. lu jógee ci Maodo traduire la ku Maodo jàngal traduire na kon xam ngeen ne kër Maodo këru xam. maami Serigne Mbaye Mansour ay wëlli. Serigne Aline Gueye moomu nag Serigne Hadji Malick a def ci moom li ci moom. maami Al Amin ay wëlli. pour nga xam Maodo Cheikh Sarr Serigne Aline Gueye def na ci daaray Maodo 11 ans Seydil Hadji Malick Sey wali. boobu de ka mu ne fa nga bind fa mu ne da. Mamadou Malick Sey wali. nga bind daan mu ne kan nga ne kan mu ne lan. ku sopp Sidil Haaji Malik wali nax mënta jàng mënta mokkal yéen waa seen TV Maodo yi wali waaye këru nit yàlla ku la gën a nangu am cër kenn du Sidil Haaji Malik wali soxna Maam Alaaji Malik soxna Safiyatu Ñang la tudd Serigne Aline Gueye ne wali yow mi may jàng maa ngi lay jàngal ne jigéen dafay yaru yem ciy loxo kenn du Sidil Haaji Malik wali maam Roqaya Njaay way juru Serigne Babacar li coow li bari bari mo sa teg tànkam ci Sidil Haaji Malik sey wali maam Safiyatu Ñang li coow li bari bari benn yoon la teg tànkam ndar da doon placer pour dem jarne bàyyi Serigne Babacar Seye wëli maam Yacine Dieng mo sa génn ñëw Tiwaawan lu dul benn yoon ba ca gaar ba xew-xew am mu dellu sa ñëw Tiwaawan Seydil Hadji Malick Seye wëli jigéen day yem fa ko jëkkëram yem loo waaye yaay sama jëkkër boo xëyee ma gont boo gontee ma xëy nga ne a ah, ma ne o ma ne a ah, bu coow amee yawa maam Maodo Malick Seye wëli maam Safiyatu Ñang radiyallahu taala anha di soxna maam Maodo ci kër gi ku waaye root mi dafa bari ci kër gi Serigne Alioune Guèye ne dinaa dimbale soxna Safiyatu ci liggéey bi. kenn du ma Maodo Malick wali. bu guddi jotee mu root naa yi moom Serigne Alioune Guèye. Serigne Alioune Guèye ne wali. bu fajar jotee mu bale kër gi moom Serigne Alioune Guèye. Sidil Hadji Malick Sey wali. bu fajar jotee mu ngi sàkket sàkket yi moom Serigne Alioune Guèye. Serigne Alioune Guèye ne Maodo yi wali. maam Safiyatu ñang ne Seydi Hadji Malick mu ne la bekk mu ne ko Alioune Guèye boo moytuwul gàcce dina la ci fekk. kenn du ma Maodo Malick wali. way juram danoon la daa bëgg mu am xam-xam daa bëgg mu mu daa bëgg mu baax daa bëgg mu man mu man ah, xam-xam borom parasol bay wëlli yëpp daje na ci moom waaye xam-xam xàmmeewul ka xàmmeewul fa borom Tiwaawan mooy wëli. te ñëpp xam nañ ne ku mën a jàngale nga waay waay waay Maodo waxal ci xale bi. kenn du Seydil Hadji Malick wëli. sëriñ Hadi Touré mu baax ma danaa ñëw ci mbindam nee na kuy jàng te dajoo jamono amoo sa as. maam Maodo Malick mu ne ku lay mën a doon day wax ba pare yow nga dem jàngi mokkal Maodo buy wax bu pare nga mokal direct te doo jàng. sëriñ Aline Gueye ne Maodo yi wëli. mbaa yëg nga ne Alfiya Ibnu Malick sëriñ ak sëriñ Hadi jàngal ci fukki fan. arab baak mokkal ba yëpp sëñ Hadi ci fukki fan la ko jàng ci Seydi Hadji Malick maam Maodo ne buñ julee wasi fa ba pare Alioune Gueye ma ci pantre ana soppi Seydi Hadji Malick wali eh eh eh Mohamed maam si Alioune Gueye nee na bi ma bi ñu wasi fa balaa ñuy lal malaan Maodo dafa ne yukku yukku tànk yu dëgër dugg ci pantre bi ne Alioune Gueye mën a labay ko mën a dugg sil dellool bunt bi ma delloo xam nga lu ma laaj ñetti question la ma laaj am nga njàpp ma ne ko waaw jublul penku ma jublu penk mu ne ma gëmmal ma gëmm mu jël loxoom teg ci sama bopp bi mu mel ni dañuy pomper sama dënd bi sa sa sa sa sa sa ndox mu seddu guy ñu pare mu ne nañ ma wasifa bu ñu wasifaa ba keroog ba ma tëddee keroog laa njëkk a tëdd gént gis yonent bi bi ñu xëyee lu waay jàngoon ci téere boo tëralee ma jànga من تعلم وجدناه سهلا لينا لم يشدد ومن لي بأذتاد ربي مريد بلا خلوة بل همة مثل أحمد ومن لي بإخراج الحقائق ناصحا ومن لي بتدرس الكتاب ومسنده ومن لي ببذل الفقه والنحو منطق بيان معنى بديع بمسعد وملي بورش بل جريد والأشعر وملي بآداب ودرب مهدد وملي بنجم في النجوم وموصل نانكو سيد الحاج مالك يا مصل صولا نانكو مام مودو يا مصل عروس noon ko njool faama yaama sol si ratal badri mi quwade wa malli iza nahnu jina nahwa min taallumin iza nahnu ndem ñun jina dikk nañ nahwa ci kanamu Cheikh Al Hadji Malick min taallumin ngir jàng sëñ Aline Gueye nu Maodo di mel wajadnaahu sahlan eh Mouhamed noon naa la Maodo ku bëri caractère la ba mu des bu duggee ci leçon bi bu duggee ci leçon bi day kaf wajadnaahu dañ koy fekk sahlan mu nekk nit ku ku ku accessible balaa ko jub mu la eh, na def loo fanaanoo naan nga café mbaa ndékki ngeen jege sil waay ah yow li nga soldat rafet tey ah yow yaa ma gën a rafet ah yow da ngaa de toogal wajat naawu sahla layinaan lam yu saddidi layinaan mu nooy lool lam yu saddidi du ñàngal du kalakteeru du fas kanamam noonu nga koy firee kon waman lii fan laay jëlee tee bi ustaadi ci jàngalekat bu mel ni a Al Hadj Malick rabbi murido du la jàngal yem ca waaye dalay tarbiya ba nga xam yàlla bila xalwati te du la dugal xalwa du dugg xalwa bal himmati waaye yitte ji nga gis mu bëgg yàlla ci la lay branché misla ahmadin comme ni Seydina Mouhamed meloon ak sahaba yi ba defar leen Maodo noonu lay mel ak taalibe yi ba ñoom ñëpp ñii di Omar ñii di Babacar ñii di Ousmane ñii di Aliyin te coowam di ci bari kon waman fan laay jëlee ci yéen waa Sénégal bi iqraajil xaqay nasihan fan ngeen di jëlee ti koo xam ne sew-sewu xam-xam yi nga xam ne kenn amul foo koy jëlee mu di ko def tas ba ku ñëw yem ci Serigne Cheikh Tidiane si nee na tilkal xawaamidu mal abu sibyaani li borom kaala yu rëy di raxee nit ñi ci ruq yi boo ñëwee tuwaan fekk borom jiini fur yi di ko fooye waman lii fan laay jëlee ti bi idrasil xayru asisan waman lii bi iqraajil xaqaay inaasi an waman lii naan ko Seydil Haaji Maalik jaama sol so naan ko njool faama yaama sol aroodan naan ko njool faama yaama sol siiratal badri mi quwade wamalli huwa al amra mul faqihu نزيغ علم خليفة شيخنا نهجة تجاني خليفة سباني ما سباني ما سباني سباني ما سباني سيد الحاج مالك هو العلم الفقيه بديع علم وخليفة شيخنا نهجة تجاني سبانية ما سبانية سبانية سبانية ما سبانية سيد الحاج مالسي هو البحر الحدام فلا يتامى إذا الأمواج فلا المسيح فلا يساء إذا رفعت على الجود الهداني سبحان يا ما سبحان سباني ما سباني أسباني ما سباني ما سيد الأجمل هو الكف المنيع بارتياب هو الشيق دليل إلى الجنان سباني sabaniya ma sabaniya ma sabaniya sabaniya ma sabaniya ma سيد الحاج مالك هو الكف المنيع بلا ارتياب هو الشيخ دليل إلى الجنان سبانية ما سبانية أصباني أصباني يا ما سيد الأجمل سوى دمو ما أفل ويتوفون كعبة علمي ركن اليماني cheikh daanaka euh, cheikh Tidiane euh, ñaari cheikh yi euh, daanaka première partie bi mu ngi noonu di waaj a jeex Oustaz Alioune Diagne ñëpp a ngi kontaan Euh, am na ku ñuy wax euh, Moustapha Diouf ñu koy wax Tafa Cuuraay ma nga ca Tëngéej nee na ma paquet uud daal fàggul naa ci Cheikh Tidiane Mbaye benn def ko addiyee maam Cheikh Seydi El Hadji Malick eh. waaye tamit fàggul naa ko ki nga xamante ni mooy Oustaz Alioune Diagne itam euh, xumma xam nga ko bu baax a baax xumma ba nga xamante ni ma nga ca ICS industriel chimique du Sénégal Eh, mi ngi seetaan daanu na nee na incha allahu dina jëflante ak yéen ndax du ko wax addiyey seex Seydil Hadji Malick si radiallahu taala anhu ak eh, Lamine Kane Lamine Kane nag seex mhm. eh, parking oto la na ma maa ngi topp émission bi man nag taalibe laa du ma wax ma ne ko am ah, mooy jàmm de ndax ko wax ba ka rek émission bi jeex aca Fatam mu ngi bëgg a ah, neex ah, waaw dafa neex ba mëpp neex na ba dëkk yëngu na bëgg a neex Alioune Diagne mii romb neex <laughs> Alioune Diagne mii bu ñu amee ah? kon Kaline ah? seen Alioune de ëpp na ëpp na ëpp nay toog. ma ne ko dëkk bi yëngu na macha allah ñëpp ñëpp kontaan nañu. Eh, mais xam nga ñi nga xamante ne ñoo ngi seetaan boobu ak léegi nag faaw ñu teral leen. dëgg leen di jox addiya sunu maam Malick Sy. lañ leen di jox ci xéewal yi nga xamante ne ba ñu ko dooree ci Grand Plateau. premier jour ba daanaka ñi ngi ci eh, li ñuy wax woor wàcc sax weesu nañ ko daanaka li ñuy worati bareetul ah. eh, dañu leen di jox xéewal yooyu rawatina guddi gi tey ñëpp a kontaan Euh, sunu papa Doudou Wade mi ngi wane mbégteem ci plateau bi mi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mm. waxtaan wi oustaz aliw am na solo lool lool lool euh, ñu bàyyi kon ki nga xamante ne moom mooy Momo Wade Momo mm. faaw nga xool xale yi ñi ngi daanu ci ci li nga xam ne moom mooy Sen TV l'officiel bi ci plateforme yi ñu ngi wane seen mbégte ñu ngi wane seen seen cofeel gi nga xamante ne euh, nee naa juddu ñu fekk fi mbay juddu ñu fekk Falaji Malick waaye dañu koo bëgg di wane cofeelam saa su ne ñu bàyyi la yow nga wane sa cofeel ci ñoom gone yi judd ci ginnaaw mbay. waaw ñoom ñëpp bëgg mbay ñu gisuñu mbay waaye gisuñu mbay waaye koo ci wax mu ni la. <laughs> ayca gone yi nag ñoom euh, bëri nañu. Safia Diatta mi ngi euh, daanu Safia Diatta moom euh, dafa bokk ci gone yi nga xam ne ñoom moom it dafa juddu ci ginnaaw mbay. <laughs> gisul mbay waaye boo ko waxee mu ni moom mbay la doyloo. moom it ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax booy xool pratiquement ci réseau sociaux yi commentaires yi bari na. am na ci ko xam ni man euh, commentaire am daf ma daf ma marqué parce que nee na moom Touba lay seetaanee GP. Mhm. mu ni je suis mouride et n' pas n' importe quel mouride je suis sadiq mais vraiment Sen TV yéen a ngi wane ni tarixa yëpp benn lañu ñun waa Touba kontaan nañu ci guddi gi ngeen jagleel Seydi Hadj Malick Sy jërëjëf Sen TV ayca kii euh, wax na wax ju rafet waaye malheureusement bàyyiwul euh, numéro téléphone am. bëggoon naa ko teral ci euh, li mu wax mi ngi tudd euh, soxna Mariama Bousso soxna Mariama Bousso malheureusement bàyyiwul euh, numéro téléphone am commentaire yi nag dafa bëri démb ba tey maa ngi gis ku ci nekk naan daaw ba maa ngi commenté mais jàpp leen ni commentaire yi mooy mooy bëri donc dinañ ci jéem a jël quelque bu ko defee ñu teral leen ci li fi ne waa Tiwaawan euh, actuellement ñoom it kontaan nañu bëgg nañu ci euh, guddi tay gi euh, Cheikh Sarr gars yi nee nañu xanaa danga daanu leer. <laughs> gars yi dañuy wax daanu leer mais xal xam nga xale yi. xale yi maam Seyda dinaa la xale yi dafa am benn wax bu ñuy fooyee. dangay dégg xale bu bu toog ba si yàgg Sarr ne dama jooy. waaye ci lii lañu war a jooy. wax ji tay ji tay ji la am sens tay ji mhm. dama jooy ci lii. maa ngi wax faral sa ma <laughs> maa ngi lay dégg boo jógee fee nga toog. changer place. loolu nga gis yow. kii sama xarit la xam naa ko. xam naa ko waaw dafa nu muy daanoo. xam naa ko man man xaal laay demee man. waaw ah, moom eh, xam nga xam nga xam nga daanu <laughs> xaal yëpp ban moo ci gën a metti. daanu kuy de leen wax xaal de leen wax bu ci gën a metti. daanu kuy alteeru. dafa diis daanu kuy alteeru. kuy alteeru kuy dem saal di yëkkati yu diis man damay bañ na kuma. xam nga matuma nit fatom Cheikh nii lay daanu nii ma yenu ko bi ñu waxtaane Cheikh Ibrahima ma yenu ko daw ak moom génn ci biti eh. Cheikh di ma conc ci loos ma génn yam ci kii garde fii eh. ni ko diw kaay téel ma ko mun la kan muni ma kan la man ko Cheikh Sarr la mais boobu mënoon nga ma woo ma wax la lu koy calmé loolu daa mën a nekk mun na ne mën nay daanu mun na ne ma bokk téléphone di la woo mun na ne prochaine fois xëccal benn sikkim bi rek léegi lu koy <laughs> maa xam sama baay la léegi sa papa ngay wax loolu. non non moom xam nga rek yara dëkku gi. mais man mais man mais man man bu ma amee xal li ma yëkkati déema ci sama nopp bi rek ne ma madame Sarr ngi xam nga ko ma wax loolu. Ah, ah, ma yow mais madame Sarr ma jox secret boobu. madame Sarr ma nag ngay sama nopp bi rek xam nga nag ba daa daa toog te jóg. daa tëdd tey jóg ku ne dóor nag uh. am ku ñëw dee ko ne ko diwee ñëw nag bi daa jóg nga ah, diw man bu ma amee xaal rek ma madame Sarr ngi nii <laughs> ma yow en tout cas <laughs> euh, kontaan nañu ci euh, yow à travers commentaire yi. Euh, ñëpp ngi naan Cheikh moom këru diine yëpp la yamale. bu ñuy waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall mu wane cofeelam bu ñuy waxtaanee Cheikh Ahmadou Bamba. mu wane cofeelam bu ñuy waxtaanee waa Kër Baye Niass mu wane cofeelam bu ñuy waxtaanee itam waa ëttu Laayeen mu wane cofeelam. loolu mooy wane ni Cheikh Sarr Cheikh Sarru Sénégal gi yëpp la du samay wax waxu internet yi la. ñi nekk actuellement di euh, commenter euh, Cheikh moom dafa bokk ci euh, ñi ñuy woowee Sénégal bëriwuñu si dëkk bi nag waaw boo leen compter bu ñu matee cinq bëriwuñu mais moom ci la bokk moom Cheikh Sarr donc woy leen di commenter fii léegi ci kanam ma maye benn enveloppe bu vingt cinq mille francs ki ma koy may mi ngi tudd Soxna Ami Kolle Soxna Ami Kolle nee na kontaan ci Sen TV vraiment bëgg nañu ci yéen GP bi mu tàmbalee ba ni muy waajee jeex vraiment euh, zéro faute yéen a ngi ñuy bégal ci actualité di ñu bëggal ci euh, diine gi itam félicitations à vous team GP félicitations à Fatou Abdou Ndiaye félicitations à Ndeye Dimet ak Khady Colonel donc kii soxna Ami Collé moo ko wax euh, moom dañ koy jox enveloppe bu vingt cinq mille francs bu ko defee mu euh, wettali kooku numéro téléphone am. mun mhm. nga jël Fatou Abdou. 77. 665. 19 ak lu ci topp. donc moom mun nañ ko jox enveloppe bu euh, vingt cinq mille francs bu ko defee mu wettali kooku euh, pourquoi pas mu pare ci koriteem beneen enveloppe bi may joxe waat kii mi ngi tudd. bon maa ngi défilé parce que commentaires yi bëri na euh, damay défilé ba yam ci euh, benn boo xamee ni euh, certainement <coughs> am na <coughs> lu muy lu muy lu muy firndeel kii góor la mi ngi tudd Abdoulaye Fall. Mhm. Abdoulaye Fall. Abdoulaye Fall nee na tey képp kuy tiijaan sa yaram daw na. kontaan nga bég na ci bég nga ci bisu tay bi vraiment GP kontaan nañu xol yëpp féex na moom moo kañ nga ñuy teral euh, ci xéwal yi parce que daaw ba maa ngi commenté Abdoulaye Fall moom na jàpp ni euh, terangam mi ngi euh, doog a si donc moom it mun nga jël numéro téléphone am 77. 638 29 ak li ci topp moom it ñu jox ko ci xéwal gi Fatou Abdou bu ñuy bu ñuy mayee defe naa ni. li des ci guddi gi yëpp kon duñ ko waxtaanee te bëgg naa nag wax dëgg yàlla li des ci guddi gi yëpp. mais après da ngay mayewaat parce que après il faut nga tijji enveloppe cinquante mille yi. Euh. nga tijji ko. loolu nga gis de jar na lu ko raw. jar na lu ko raw jar na lu ko raw faaw nga joxe tey ci guddi gi ay cinquante mille francs tey dañuy jéggi vingt cinq mille yi. nga ni ma tey da bëgg ñu jeex na nii nii jeex na. nii vingt cinq jeex na jeex na. cinquante la ñuy tijji. oto bi sa yaram tàng na de. mooy dama dama daan damaa yomb. korité dafa jege. Hmm. korité gi jege moom maye gi dafa war a gën a bar. Hmm. xam nga Fatou Abdou Diagne xamal leen de. Hmm. ku sa maam Serigne tuba waaw ku sa maam Seydi Hadji Malick. Abdou Ndiaye fu ñuy waxtaane maam Seydi Hadji Malick daa war a joxe ba jeexal tàkk dëgg la de ah, ñu ngi nuyu baax a baax suñu suñu bàjjan bàjjan Ndiaye ba Fall mm, mm, macha allah euh, bu suñu cousin Abdoulaye Sey ak Iba Sey ma ngi ñuy seetaane ba Amérique macha allah ñu ngi bëggee ñoom Mouhamed Sey ñu ngi ba Amérique mm-hmm. bàjjan Ndiaye ba Fall ñu ngi lay nuyu baax a baax mm-hmm. suñu bàjjanu xol la ñu ngi nuyu tamit suñu bàjjan Wore Sarr di nuyu tamit Aba Diatta Mm-hmm. Aba Diatta moom taalibi Seydi Aboubacar la. dëgg la dëgg la tamit Alima Ndione. Alima Ndione dëgg la waaw ñoom it taalibi Seydi Aboubacar lañ. ay ñoom Sira Ndiaye. wallaay ndeysaan ñoom Didi Manivar mais xale yi ñoom ñëpp ña ah. wax ña euh, mm-hmm. lay dugg. Ah. ndax euh, te li ñuy wax ne euh, bu dee dafay jóge ci xol. te doon dëgg dafay dugg ci xol. et loolu moom moo leen dal donc ñoom ñëpp daanu nañu as ah, sànq ba tey maa ko dégg muy way baat bee xaw a naqari nag as Leyti Ndiaye. Eh. <laughs> ma nga desi. ñoom laa soxna na ko mais baat xaw na xari. ñoom laa tudd ñoom laa ah? tuddee xale yu judd ci ginnaaw mbay. waaw ñoom ñëpp gëm mbay. ñoom ñëpp a gëm mbay macha allah mbay def la. <laughs> donc dañuy dem jëli. Eh. Euh, sunu page de publicité. ànd ak sunu ay partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo ñu gunge ñoom ñoo ñu dooleel bi grand plateau dooree ak.